بنعمة ربك بمجنون ñëwoon fii tey euh, Touba ziar si sunu xalif général euh, des Mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké euh, waxtaan ak moom waxtaan woo xam ni wax dëgg yàlla yesal nañu sunu sunu ci moom sunu taxawaay ci kër gi mais surtout li nga xam ne dañ ko daan def laata tey jii ñu dénk ñu ndombal tànk ñu war cee mën a taxaw taxawaay bu mat sëkk. Euh, mais aussi di wax rek ni ci ndigalu président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay lañ fi teewee ak ci turu premier ministre Ousmane Sonko mais aussi ci turu gouvernement Sénégal yëpp ministère kenn desul ñëpp ñëw. muy cabinet bi sama secretaire général euh, mu ngi fi monsieur Ndiogou Guèye mais aussi sama directeur de cabinet euh, jiite et tout le cabinet les conseils technique ba ci ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir ñëpp a ngi fi ànd ak ñun mais les directeurs de programme les coordonnateurs de programme la délégation aussi euh, à la protection sociale mi ngi fi monsieur Matar Sène di doom ci kër gi moom tam am taxawaay bu mat sëkk mais di wax ni Promoville Puma PUDC ça mi nga xamante ne moo yor mbirum ceeb mi kenn manqué wu te ku nekk am ngay loo indi ci li nga xamante ni moom ngay def donc macha allah. Euh, ministère de la famille ñëw na teew ci màggal gi muy bés boo xam ne nag waaw benn la ñëpp war cee mën a taxaw euh, umma islamique moo ko moom kon kenn waruñu cee ëppale waaye di wax ni rek euh, ren ci màggal gi am na lu bees lu ministère bi indi mooy dinañu am chapiteau bu mag boo xam ne dañu ko fas yéene teg pour que programme direction mission lépp loo xamante ni ministère bi am na ko ci taxawaay ngir gunge gouvernement du Sénégal ci luy protection sociale luy développement communautaire mais luy famille danañ ko fi indi su ko defee population wu Touba danañ ci mën a gën a xam ndax nit dina moom dara du ko xam nit dina yelloo dara du ko xam mais pèlerin yi aussi ku ci bëgg ñëw waxtaan dinañ la xamal lan mooy ministère de la famille et des solidarité dinañ leen wax aussi li nga xamante ni mooy àq ak yelleef yi nga xam ni ci protection sociale jëm ci famille jëm ci xale yi surtout xale yi nag ndax daara yi am nañu fi sax centre gindi dañ ko déplacé indi ko fii muy centre boo xam ne ci biir ministère bi la nekk liñ koy doyee mooy xale yi réer ci mbedd mi xale yi nga xam ne dañ leen di for ci mbedd mi ñu leen fay indi di leen dimbali ba ñu mën leen delloowaat ci seeni famille le centre gindi sera déplacé à à Touba donc di wax rek ni concept bi le le village de la euh, du ministère de la famille o maggal danañu ko def une réalité boo xam ne dinañu fexe ba ñëpp xam li nga xam ne mooy suma taxawaay ñu ngi gërëm ñëpp nag waaw ñu ngi gërëm ñëpp indi nañ fi 70 tonnes ceeb booleeg euh, chèque boo xamante ni tamit sëñ bi lañ ko jox pour jàppale ko ko andi nañu euh, diwlin andi nañu euh, ndox mu baree baree baree bari parce que ndox mi moom app na ay <laughs> milliers et des milliers de bouteilles dinañu ko teg tamit pour ñi nga xam ne dinañu ñëw visiter ku mar naan daal war ngaa mën a ñëw yegg si ci chapiteau de la famille des solidarités